yàlla mënal la tey te kii nga dëkkin xam ni nga ko amee eh, xam nga nga dëkkee xam ni nga ko amee ah ba ko xam yi ngi may dégg kon ñun fi nga jaay ay ko duñu ko saf te la bëgg ak bari leen sama baaram bi ca xaj eh, li nga déglu yow ca xaj dàq ngay gor jóg leen dàq nga ay gor ngay gor leen sama baaram man kenn du ma dàq may ku nañ dem eh, xam nga mi ngi lay wax naan eh. naan naan bàjjen si ni Fall la jur waxu ji kanam <laughs> ni nga mel amul ci sunu xeet nun ndox maa njëkk a bañ a doon man boo bañ a sama mbokk maa gën a bañ a doon sa amul lu ma dépassé kat te nag danaa la wax lenn dangaa def li kër gi dangaa def li xaw nu mu demee booy génn leen ci biti yamba jeeg dorob di nga doon jaay bi nga ñëwee loolu ëppul kenn mu ëppul kenn moo la may dox leen waxee jëkk ca biti boo ma ba ma xam nga ma de boo ma ba ma xatee ma ba ma. waay waay bu ma ma ngay may ma. bu ma ba ma bu ma ba ma. géej ca biti. waay bu ma ba ma nga ne. doxal ñu dem Je ne waa pas la yow mënoo xeex dara xeex dara nga ci mun nooy xeex xooluma waaye sees bi moom jëla sa yite jëla ana say daal da nga laaj gën Thank you.